gis tabax yu yees ay tund yu yees ay mm. taax yu yees mu nekk une réalité comme boo demee en Europe tu vas dans des villages reculés ñooy gën a développer urbanisme que ñun suñu ay ville dapas mm-hmm. war nañu tàbbi ci loolu nañu tàbbi ci loolu donc programme mm-hmm. tëgg ko tëju sa bureau euh, def ay esquisse sur des sur de sur des sur des sur des point yomb na tey maag sëñ Mansour bii bu ñu tëju woon daañu mën a bind léegi programme sur le programme sur le plan infrastructurel on va faire mhm. sur le programme plan de truc on va faire sur le truc on va faire mais c'est facile mhm. mais je dis encore une fois la ngay jël na nekk des engagements réalisables parce que quand tu dis dinaa fexe ba dëkk bi ku fi toog di nga lekk ba suur naan ba màndi wax ko yomb na mais naka nga koy jëfee si yan mécanisme ngay jaar mhm. pour loolu nekk une réalité def naa ne loolu tam dafay am solo ñu xam ko mais l'un dans lot l'un dans l'autre l'un dans l'autre tey ci nii boo xoolee ñun lu ñu am nous avons pratiquement nous avons pas moins de trente huit à trente neuf ressources naturelles si suñu réew tey ci nii France bokk na si les plus grandes réserves mondiales en or France euh, Wehrmacht bu muy dugg si Paris def nañu programme d'évacuation pour seen or bu ñu dencoon. am fu ñu ko nëbbi. mais France amul un gramme d'or. France amul un gramme d'or. amul. ñun laajal ban jigéen moo takk or nga ne ko or bi fu mu jóge mun a la Sabodala. bu ñu amee bu ñu amee comptoir d'or yàggul. alors que nous exploitons l'or depuis pratiquement l'ère djoufiste. 99 avec Habib Thiam. premier le donc loolu dafa nekk jafe-jafe. tey ji nii am na ay ressources yoo xam ne jamono ji àddina bi ñëpp ko soxla mais xoola tey ji nii ñun fu ñu toll ci niveau de développement on nous parlera oui c'est bon de construire des routes oui c'est pas mal infrastructure foog muy am mm. mais je dis encore une fois tabax tali comme nu ñu koy defee euh, cheval de bataille du xam-xam Abdou Khare tabax tali du xam-xam mm. du xam-xam waaye naka lay fexe créer les conditions du développement industriel mhm. du pays parce que loolu mooy créer ay emploi tey jii nii avec les plans d'ajustement structurel au Sénégal dañoo on a ay emploi durable il faut dire. oui nous avons perdu pratiquement fleuron suñu industrie mhm. entre le la fin des années quatre-vingt Et le milieu des années 90, nous avons pratiquement perdu toutes nos entreprises. Mmh. <coughs> Par là, les, euh, à cause des conséquences subies. Mhm. yu jógee ci plan d'ajustement structurel yi. on a on a privatisé et plusieurs entreprises également pour mauvaise gestion. Mhm. dañoo fay. tey da nga daan dégg ñu naan la Sotiba Simpafric da nga daan dégg ñu ne la Icotaf da nga daan dégg ñu ne la da nga daan dégg ñu la Sogas mhm. da nga daan dégg ñu ne la euh, Kafal et cetera et cetera mu amoon li nga xam ni. mooy les quatre points cardinaux en termes d' industrialisation si région boo dem am na woon na benn fleuron si Sénégal boo xam ne mi ngi doon liggéey si wàllu industrie nu avions un secteur secondaire assez fort boo xam ne da doon def dans la transformation mm-hmm. au delà du secteur primaire tey jii nii secteur bi gën a fort Sénégal mais c' le secteur tertiaire avec les télécommunications et cetera et cetera mm-hmm. donc ñun war nañ mën a fexe ce passif ce passif bi ñu am ce passif pour véritablement ressusciter ces entreprises là. d'accord. pour aller dans le sens d'une renationalisation tey jii boo jëlee industrie chimique du Sénégal joni mm -hmm. Mm-hmm. les industries ICS. Mm -hmm. je ne pas si tu te des des des des des des euh, des, euh, numéros hors de Jeune Afrique. Mm -hmm. économique. Mm-hmm. yu ñu Euh, euh, waa di doon yu doon ñëw sur les ent sur les cinq cent première entreprises en Afrique ou les deux cent cinquante premières entreprises en Afrique ñu daan ñu ko daan def ay jamono hmm. Hmm. mais tey jii bu ñëwaan si Sénégal la première entreprise en termes de réalisation de chiffre d'affaires c'était les ICS hmm. léegi nii pour ma ñëw waaw c'était les ICS mais aujourd'hui ICS imagine-toi dañ ko jël jox ko Inde Indorama moo mm. yore le pourcentage le plus fort di exploiter suñu phosphate di ko yóbbu di ko transférer di ñëwaat di ñu ko jaay plus cher alors qu'on alors alors qu'on doit alors qu'on doit aller dans le sens de renationaliser moomal ko suñu bopp parce que ñun nous avons fait de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire un combat mm-hmm. parce qu'on en parle tout le temps <laughs> donc lu boo ñëwee dans le secteur euh, de l'agriculture Abdou Diouf moo fi bàyyi le projet des vallées fossiles mm-hmm. moo fi bàyyi le programme de revitalisation des vallées fossiles moo fi bàyyi le programme euh, du canal du Cayor mm -hmm. écoute on ne peut pas parler aujourd'hui d'autosuffisance mais sans revenir sur ces projets-là mm ce n'est pas possible quand on inaugurait euh, li nga xam ne mooy c'est technopole mm -hmm. Abdou Diouf bi muy inaugurer le technopole il parlait de future Silicon Valley mhm. du Sénégal mhm. <laughs> non mais non non non non je non lu ma wax nii c'est c'est la réalité. kon suñu ñun bu ñu demee si deuxième système bu ñu demee si deuxième système de privatisation bi laa ah wax. Abdou Xaaral si la ñu andi. le mm-hmm. système de la privatisation à deux niveaux. Mm-hmm. comme SONES. Mm-hmm. deux E nu ñu ko defee SONES benn E. propriété du Sénégal jël l'exploitation créer SDE e, de privatiser ko. si la ñu jëmoon mais nous étions dans la seconde phase de de privatisation parce que ñun dañoo toogoon ñu ne Cam euh, de Sus tu te de l'ancien directeur général du FMI qui disait mm. que la majorité des pays en Afrique sont sous perfusion mm. il suffit de retirer le tuyau mm. pour qu'ils passent de vie très trépas alors que l'essentiel des ressources fii lañ koy jëlee di tabax seeni réew ba pare ñun ñu nekk si li nga xamoo di ndool donc Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg président bi ñu war a fal incha allah le 24 wa illaa bu ñu war a fal au second tour yàlla rek a xam sa à dire que loolu yëpp war na ko jëlaat parce que nous avons besoin mm-hmm. parce que bu ñu naan nationalisme les gens son un peu frileux oui le nationalisme économique sa doit être de rigueur mm-hmm. nationalisme d'approche sociale d'engagement patriotique ça doit être de rigueur et de vigueur mm-hmm. war nañ mën a tabax société boo xam ne. sëñ Mansour maag sëñ Mansour du ñu toog di xalaat fu ñuy lijjantee billet si jëwrin pour mu yóbbu ñu Nicaragua. très sincèrement. c'est-à-dire da koy wax da koy wax bon les gens rigolent pourquoi jusqu'au moment où nous parlons tu vois des intellectuels qui rêvent d'aller vivre ailleurs ah ouais. dans le monde au Sénégal ou en Afrique bëri na fi bëri na fi alors que nous avons toutes les conditions pour véritablement créer les conditions excusez-moi la redondance développement économique dafa mën a ne tey jii nii tu prends tu prends tu prends tey le Botswana. Mhm. en Afrique c'est devenu une référence économique. tu prends les Seychelles île la. Mhm. les ille île la. Malaisie. c'est devenu une référence économique. Mhm. le Cap-Vert d'à côté ma jeexalee foofu. mais jibi ay jamono dañu wax ni dëgg. suñu mbokk capverdiens yi fii moo nekkoon seen lieu d'émigration. ils étaient ils étaient ils étaient ñoom nekkoon ñoo doon nekk peintre yi fii Sénégal mm, mm. dawun boo demaan rue de Baye ville mm. salon de coiffure yëpp ñoom ñoo fa nekkoon effectivement ñoom ñoo fi nekkoon ay chanteur di way di def élévage élevage de porc et tout ça mais aujourd'hui <coughs> cette diaspora capverdienne ñu si bari delluñu seen dëkk parce que ils sont dans une phase de reconstruction aujourd'hui boo jëlee les les agrégats en en termes d'approche démocratique yaa dégg aujourd'hui dañ say raw Sénégal Cap Vert day def alternance président bi ñu gagné mu xëy war velom wala war a dem liggéeyi. le Cap Vert a éradiqué le paludisme. éradiqué le paludisme. Ghebreyesus Tedros euh, bi nga xam moo jiite OMS. dafa ànd ak délégation dem foofu félicité leen. nous jusqu'au moment nous parlons ñu ngi naan ay programme de vaccination ñun fu ñu toll ñu ngi naan ay moustiquaires imprégnés di joxe ay marché ay milliards ay nit di exécuter moitié euh, yaa ngi non je dis mais Djibi je dis c'est compliqué mais il faut que ça non il faut que ça cesse cest dire mais il faut que loolu Abdou il faut que mu soppeeku jawrin mmh. il faut mu changer mmh. te jii nii ngay xool le comportement que nous avons tey jii nii sëñ Mansour bu amee poste suba Ablaye Mbow bu ko gisee non dootul nu mu nu mu amee moom relation da koy dem mel nii ku koy kii parce que loolu la ñu tàmmal loolu la ñuy dund je dis une fois yow lan la fa teg man maa la fa teg parce que maa maa jox pouvoir kenn ne ko yow yaay nommé à tous les postes civils et moo la fa teg toi tu es, tu es mon mhm. approche boobu noonu il faut mu soppeeku xoolal tey jii nii ku gën a tuuti bureau Sénégal jibi mhm. ku gën a tuuti bureau Sénégal mhm. ay dugal ko si bureau boobu ne yaay borom bureau donc il faut que ça change. day abusé euh, loolu noonu sa à dire que xoolal c'est c'est source de sous-développement. c'est source de sous et le sous-développement avant d'être comportemental. Hmm. cest dire que c'est dans la tête. c'est dans la yourself from mental slavery none but ourselves came hmm. from man Bob Marley la ko wax. Bob Marley la ko wax mais mais fi mu daanale foofu laa lay jox. waaw te waaw moom rasta la quoi. rasta yaa ngi ci biir quoi. <laughs> waaw rasta yi ci biir la dëkk. <laughs> alors kon euh, priorité yi donc toujours dañ koy occulter pourtant li ñuy avancer loo mel na ni jege na donc suba banu président la ñu bëgg ñun ban président la ñu soxla. président sénégalais. moom nag waxam déggin la laaj. pour yéen ñi koy dégg pour yéen ñi koy dégg. <laughs> bon sénégalais bon nationaliste. moom philosophe blanc masque noir quoi. Ah, saa ngi dégg wax ji dañu bëgg waa doomu réew mi quoi koo xamante ni réew mi lay jaamu. paa day ñëw takk sareet réew mi defar boppam defar askanam dem yoonam quoi. dañ ci sonn quoi mm-hmm. ñu bëgg président bu décomplexé quoi président boo xamante ni ñu sunu mbindaan la quoi ñun lay liggéeyal quoi ñun lay jaamu président boobu lañ soxla quoi. parce que dafa am terme boo xam mooy kii dafa tubaabe. et puis nguur même Sénégal ñoo am ay langage yoo xamante ni ñoom ñooy sax ñoom ñooy yàq xelu ku yàlla jiital quoi. nguur ko nguur xam nga nguur maanaam am na am na nu mu tuddati. surtout ñi jàng alxuraan dañ koy faral di utiliser maanaam nguur bu la ko yàllay jox bu koy jël da koy fexati suratul suratul anam defe naa foofu la nekk sama yàlla loolu la mais dañu xamul ni weesu nañ jamonoy nguur ñu ngi ci jamonoy république mm-hmm. ak kii bi ni muy soppee àdduna bi soppeeku na ni muy doxee démocratie lañ wax quoi démocratie mooy lu ñëpp bokk moom lañ la jox ne la jiiteel balaa nga ciy def dara waxtaan ci ak ñëpp quoi ko moomoo ko mm-hmm. dañu ko dénk rek ah. mais président yi yëg seen bopp yooyu di ngeen ma dénk bu ngeen ma ko soxlaa da ngeen ma koy laaj ci njëkk. Hmm? indiscipline tu vois ñàkk yar xam nga respecté woo ñu nga diriger mel ni yaa leen gën walla yaa ëpp xam-xam loolu tu te président yow yaay le premier éducateur ko l'homme politique xam nga l'homme politique l'homme religieux le journaliste tu vois l'artiste ñooñu ñoo nekk devant la chaine ko bu ngeen toogee ci jotaay tànk newuñ leen. Hmm? la séance est bu leen jóg. Hmm. <laughs> yaa ngi dégg wax ji. Hmm? Sénégalais yi dañ sonn. Sénégalais mooy koo xamante ne bu la falee même bu defee erreur daf lay bàyyi nga diriger sa mandat ba jeex benn rendez-vous la am yow mooy jour bañ gàcc gi. mën nañu juum fal. yaa ngi dégg wax ji mais vraiment am nañ lay folli de. am nañ fu lay folli de. mais am nañ fulay folli mais tamit euh, nu mu tuddati des fois li ñu li ñu yàgg ji Sénégal mooy ay njiit yoo xamante ne joxuñ ñu cër respecté wuñ ñu ko fi di président yi depuis indépendance ba fi mu toll ni président yi ñu fi fal yëpp kenn ku ci nekk wax nga ay ñombe def nga ay ñombe hmm? Abdou ju fii la taxaw nañu jeunesse malsaine Ablaye Wade fii la taxaw nit ñi di dee mu ne comme brise de mer Macky Sall fii la taxaw jox garantie ku protéger alkaati yi def leen lu leen neex ñuy jàpp population bi di leen rey directement keroog ba Ousmane Sonko di génn manifestation bi fan la commencé Cap Manuel hmm. ci ginnaaw palais ba kër ba cité kër góor gi da cee dégg ku boutique bu ñu toj wala station bu ñu toj wala kii bu ñu saaj hmm. kon kan ah ful bu immense la woon ak ah, ful boobu hmm. amul kenn escorté wu ko ñu Liberté 6 ba cité kër góor gi la ñu dox dem mais euh, station BRT yi nii lañ leen rombe booy di manifester yu di jubilé. kenn ko kenn tojul kenn kiiwul kon kan moo civilisé wul peuple bi la wala ñi ñu diriger. suñ hmm? toll ni Sénégal la ñu bëgg nangu ci loxo maanaam multinationales yi ak lobby yi mais il faut que ñu xam benn affaire parce que. Euh, nu mu tuddati multinational yi ak lobby yi c'est comme jamonoy esclavage boo xoolee sa frère esclave moom moo lay garder hmm. moo lay surveiller tu vois boo amee projet de libération sax wala nga euh, moom sa bopp bis boo dem boo échappé sa frère la yoon ni mu dem jëli la mu dem seet la hmm? Hmm. doy na quoi esclavage bi dafa doy Sénégal dañ ñun dañoo jaay lekk suñu njëg te yëguñu ko sénégal Sénégal n'appartient pas aux Sénégalais démb li liñ fi wax ci ressources naturelles yi nekk ci dëkk bi yëpp tey jii senegal bu ñu ko defaree comme il faut. Sénégal mun nañ am sax revenu universel citoyen bu nekk di fayeeku te doo liggéey waxuma la ñuy liggéey nag quoi. Mhm, mhm. à travers ressource naturelle bi. Mhm. tu vois. duñ demee tey jii ba jamonoy Ablaye Wade gars yi dañ daan jaar Mali jaar Niger dem libi dugg biir Europe jaar ci géej gi xaru. ñuy ñuy mucc mucc ñuy dee dee. Hmm. mais tey jii ci jamono ayu Macky Sall cinq millions ngay am wala dix pour dem Nicaragua. Hmm. yaakaaroo dëkk bi. Hmm. mais loolu doy na rek comme bilan. <laughs> lan lañ bëggati. industrie alimentaire amul fi industrie de l' amul. industrie de euh, culturelle bi zéro ban industrie moo dox Sénégal. Sénégal est-ce am na industrie bu ñu mën nee lii mooy industrie biy dox Sénégal lépp mu ngi ci loxo multinationales yi ñun tout juste salaire ngay am am oto am kër am télévision am télécommande pour yow réussir nga mm-hmm. loolu mooy réussir réussite Sénégal quoi en quelque sorte <laughs> jëwriñ maa ngi ñëwaat <laughs> euh, ah donc nga nga nekk kenn ci ku bokk ci balaa ma koy fàtte waaw waxal réalisateur bi mu indil ñu salon de l' agriculture mhm. bii passé bii passé Macron bi mu jàkkaarloog baykat yi xuloo bu mettee mi waay yaa dis loolu <laughs> face to face comme Ama Baldé Modou Lo xoolal li ma du caaxaan de comme morom nañ ma ko indil ñu xool waa régie xam naa ne seen xarit dina leen dina leen ko indil lu yàggul dara <laughs> mais mais loolu solo la li muy wax ah. Hmm? parce que yooyu bokk na ci yoo xamante ni ñun faaw ñu ñuy jiite ñu yooyu noonu. Oh. di xam ne ailleurs la fa am donc du du du violence du réewande. Hmm. mais loo moom la loo war a taxaw wax ak ki nga xamante ni moom nga ko dénk. Hmm. donc buñ la dénkee da am obligation ngay rendre compte te ñun nag loolu moom dañ koy xaw a. Euh, réere mbir alors nga bokk ci wala sax moo wax ne porte parole adjointe candidat Bassirou may fay noonu la non euh, sa candidat ñu ñu ñu sànni ko ay pic mu riposté donc ni mu riposté eh, stratégie la yéen a ko ko digal ak euh, ndax ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi fare ci beneen wàll ga chaque jour li ñuy wax mooy seen ñàkk compétence noonu lañ koy waxee ah su ma la doon bàyyi nga nga nga tontul ko yow mi nekk porte parole lan lay doon. ñàkk compétence ci ban fàll ban compétence la ñuy wax. bëgg naa ñu wax ma ko parce man comprendre ma question bi. ñoom compétence su lan. ñoom de loolu lañ leen di wax nee nañ compétence su salfaañee li nga xamante ni mooy suñuy jardin. compétence su sàcc li nga xamante ni mooy suñu xaalis. compétence su diir ak te mbagg sa population. compétence su corruption. loolu mooy compétence bi ñu bëgg ci Bassirou Diomaye fay du ko mën a am. Bassirou Diomaye fay compétence gi mu am mooy nekk sénégalais juddoo ci réew mi yaroo ci réew mi xam li sénégalais yi di dund ñu yàgg koo xeex démb tey soog a ñëw gis nga damay revenir ci euh, li ñuy wax sànq ci mbirum programme ñun sénégalais yi évoluer nañu bu baax parce que bu ñuy wax léegi dañu naan parlons programme ci présidence de la république saa bu élection amee dañ naan folklore bi bëri na nañu wax ci mbirum programme mhm. loolu évolution la parce que euh, gis nañ fi ba tàyyi euh, candidat bu taxaw promettre fi loolu ak loolu mhm. robinet Lisa euh, robinet Mafé leneen ak leneen ak leneen bu campagne xasee